asalaamaaleykum yéen ñi topp Rafah TV amati nañ mbégte fa seene jàkkaaroo ak yéen ci naafila gi ñu baaxu ànd ak yéen ñu jëlee ko ci téere téereb Serigne Souhaïbou Mbacké mu Serigne Touba Xadim Rasoul guddik fukkeelu fan ak benn ñu war cee julli ñeenti rakka di ñaali sëlmal rakka bu ne fatiha benn yoon inaan salnaawu juróom-ñaari yoon xul yaay wal juróom-ñaari yoon xul walaawu axat juróom-ñaari yoon ñu baamtu leen ko ñeenti rakka di ñaari sëlmal rakka bu ne fatiha benn yoon inaan salnaaw juróom-ñaari yoon xul yaay wal kaafiroon juróom-ñaari yoon xul walaawu axat juróom-ñaari yoon dinaa fi la gu bari njariñ ak i ngeneel ñu ngi leen di jox dig daje ba suba ci beneen naa naafila di leen ñaanal kooru jàmm jërë ngeen jëf